woon lamb yi mbus ndax production moo leen di woo ci làmb ju mag bu ñu korité ba ca ëllëg sa fii ci stade municipal bu Ngoundiane ci ay combat yu mag ci ay combat yu neex combat yi bu ci dax sa morom nga ne bii la ndax ku nekk xam na ne mbus ndax production bu organisé amateurs yi dañuy kontaan nee naa la Facebook dana fa laale ak Mbalka Maak wante Clémenceau bu écrit Grand Médine dana fa laale ak TNT doomu Ngoundiane bi ngan séeréer xale bu mën a bëri bi car allah nekk écrit Grand dana fa jàkkaarloog Angola bu Ngoundiane Angola mi nga xamante ne bii avance am yàgg nay taxawaalu képp kuñ ko jox mu bañ ngaan séréer ni jox leen ma ko maa ëpp doole maa gën a féetee xale wante mbokk yi mbus nax production yamul foofu de ndax dañoo andil booy war numéro 2 nee naa la xale bi su bëree mu neex su bàkkoo mu neex boole kook amaa bu xombal amaa mi nga xamante ne bii bu jógee xombal yëpp jóg ànd ak moom nee naa la Siteu dana fa laale ak 72 kle wante kóor yi dana fa jàkkaarloog booy mbappat mbokk yi mbus naax production ngi noonu borom événement yu mag yu neex yi fële ci stade municipal bu Ngunjaan bu ñu koritee ba ca ëllëg sa ndax ku nekk xam na ne bu ñu jógee ci koor gi amateur yi dañuy namm làmb mbus production indi leen dewe na lu duun fii ci stade municipal bu Ngunjaan nee naa la entrée ba dañu ko yombal tribune mil francs la loge 3000 francs ak mbus ndax production lan demee korité fii ci stade municipal bu Ngunjaan bu leen ko kenn nettali ndax nee naa leen dina neex dina yëngu asalaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di ziar mafia bi di leen nuyu di leen ñaanal jàmm tuddi ko sakku ci yéen waaw maa ngi bëgg ñëpp daal di ziar ñëpp. fii treize la mais mais quatorze laa dëkk ko waaw maa ngi bëgg ñu fi dëkk ñëpp waaw ak waa kër gi waaw. ñu ngi koy waajal ñu ngi waaj waaw bàyyiwuñu lépp. dara waaw ñu ngi waaj ñëpp daal niñ ko war a waaje waaw igri gone dalal jàmm waaw ak ñoom gaan séeréer waaw ak ñoom jën lañ gaa yëpp daal ñu ngi foofu waaw ñu ngi non garaawul garaawul ñu ngi woor de ñu ngi woor may garaawul mooy loolu ñu ngi ci daal ragaluñu loolu billaahi waaw ñu ngi ci rek di jéem rek xam nga rek metti na moom mais dara dañ koy meñcee rek mooy loolu. non dañuy door ñaar ñaar la ñuy door waaw. côté ngoon rek ak fajar waaw. non non. ndogu ak fajar waaw. donc garaawul. Uh-huh, garaawul loolu lañ bëgg quoi lamb kese lañ bëgg billaahi ku ñu jàppale nañu jàppale ci lamb waaw non sax dañ koy def fajar moom loolu bu gi dañ koy def <laughs> non ñun duñu ay ragal duñu ay ragal <laughs> non sax lii dama dama dama ko jàppee comme contact quoi waaw moom ragaluñu loolu billaahi lu ñuy lu ñuy xaar moo bari moo tax non dara dara taxul ma jël ko dul bugg a boro rek fas yéene koo daan te loolu laa gam loolu laa yaakaar quoi waaw ah. bu dul moom sax li may liggéey du pour moom non bu dee ba pat rek maa ko gën moom waaw bu dee loolu rek maa ko gën <laughs> loolu nga gis wallaay du lool sax kooku moom bu dee ba pat rek maa ko dàq ba pat fi may dem du dem foofu sax waaw. Ah, lu ne lu ne mën na ci am lu ne mën na ci am waaw. bu dee mbapat moom loolu moo gën sax bu loolu rek maa ko dàq loolu waaw dina feeñ ku ñëw moom dinga gis bore waaw ku ñëw dina di nga gis bore waaw billaahi maa ko war a yóbbu maa koy yóbbu incha allah waaw maa koy yóbbu de hmm, déggu ba waaw di gis de billaahi ku ñëw moom yaa gis loo mos a gis. kooku maa ko ëpp doole. loolu laa gis de maa ko ëpp doole. waaw. lu mu indi. ma fekk ko ci loolu. moom xam nga la laa ko sant. keroog bu ba. na ñëw taxaw ma ñëw bëri ci kawam daan ko. non loolu laa gis loolu la moo am. ah buñ ko meree mooy loolu. maa ko man loolu moo tax ah moom daal bu ñëwee na ñëw taxaw rek ma daan ko incha allah non du kese yoo yombal ko sax dama ko man rek waaw ah li may daj yaakaar naa ko yaakaar naa moom du ko daj waaw ndax ñoom yandaa ñoo ñu jàpp foofu ñu teg lu métti ñu ngi koy sante bu baax a baax waaw ak ñoom Ganseer ak ñoom jël ndañ ñoom Hercule gars yi ñëwul yëpp daa ñu ngi sant ñëpp daal waaw ñu ngi jàpp ci bu baax a baax surtout maa yandaa yandaa moo ñu jàpp foofu du ñu tegal lu baax billaay wallaahi ñu ngi koy sant amuñu amuñu fayam quoi waaw dal na xel ngi ci bu baax a baax am nañ ci yaakaar bu baax ak ñoom Clémenceau ñu maa ngi leen di ñaanal ndam ñoom ñëpp ñoom Kélé ñoom gaan séeréer ñoom kii 72 ak Sonatel ñoom ñëpp billaahi waaw ñu ngi ñaan ñu ngi leen di ñaanal te di ko sakku ci ñoom waaw di sant sama garaay ñoom Ilimaan ñi ñoom Adama sal ak sama mag Jama ak ñoom Idi bàyyiwuñu kenn billaahi ñoom ñëpp dañ ci jàpp waaw fi ma dem bu ma leen laajee ay xaalis dañ ma koy jox fii boo ñoom ganjaay fu ma dem daal ci mbapat bu ma amee soxla xaalis ñu affaay ma billaahi gars yëpp a ciy jàpp waaw surtout sama surtout sama gara waaw maa ngi sant waa mbus naa ah ah, ah, ah. waaw non non combat du yàgg du yàgg incha allah. billaahi non du ko gën incha allah bu neexee yàlla. non du ñëw samp ndiir kooku xam naa ko. dañuy bore ñun ñaar ñëpp ay bore. xam nga moom du xaar man du ma xaar moo tax ku gë ku ñëw di nga gis. waaw loolu la xam naa ko bu baax baax. waaw day gaaw ku yiix doo gis ku yiix doo gis jël non dañoo xaw tolloo rek mais damaa jàpp ne maa ko ub maa ko ub doole. waaw loolu laa gis. non duma ko du ma imposé doole. xel laay boreel. waaw xel laay boreel. waaw loolu laa indi. waaw. loolu laa indi. billaahi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di ziar. waaw di leen nuyu di leen baalu ak di leen baalu ak si weeru koor bi ñu nekk waaw di jégal ñépp te di jéglu ñëpp tamit yal nañu yàlla boole jégal ñu fekk koy déwéni déwén waaw bi koor tamit bañ doon suñu mujjanteelu koor waaw da ciy am solo lool waaw ñu ngi koy sàkkul mboolem julet waaw di ziar ñu fi teew rek xëy amuñu seen fay kenn ku ne soo bayee salal weer bu heure bi nga ñëw kenn nit rek tax la saawaay say situation yëpp ak say bons yëpp nga teg ko fale ñëw topp ko te combat ñëwagul kon mun naa ne kooku amu fayam jël na leen wala suturaal ñoom ñëpp waaw te may leen weer ba jour ba waaw di sant waa kër gi bu baax suñu tante bi nekk fii ndey nday Fatma ñu ngi koy sant bu baax au passage waaw di nuyu suñu tonton bu nekk fii tamit ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn waa kër gi góor ak jigéen ah. mbor mi waaw kooku tamit grand su ma la waxee dëgg rek dama koy nuyu au passage Omar ak kii sama rak la te def ma rakoo pire ba ma yëg ko samal bopp kon kooku loo jàpp si moom doyul loo ñaan si moom doyul loo def si moom doyul te ñu ngi sàkku ñaan si ñëpp ñëw jàppale suñu suñu rakk bi waaw ak gars yi nii yëpp ñoom gànn kii sama rak la kii mooy rakku Yanda waaw yaakaar naa fu ñoom ñoom ñëpp ak ñoom jël dañ foo gisee kii yaa ngi gis moroomam kon xam naa yaakaar naa loolu mobilisation moo koy indi waaye kon ñoom ñu la maa leen di ñaax si loolu ñu gën a mobiliser wu ñu gën a góor góorgóorlu tamit xam ne ci yoon lañ la te yoon bi neexul ndax yoonu góor la te góor moom foo foo duggee fi di góor yi daje rek bu fa nangoo jël ndaare boo mënul jël premier tamit na nga sakku deuxième kon ñu leen koy ñaanal ñoom ñëpp. waaw di ñaanal sama boy bi Kori euh, moom tamit sama rak la sama rak bu baax la waaw mais ndax ban état de forme laa ko gisee loolu moom yaakaar na jarul sax laajte ndax ku ñëw xool rek da xam ne kii ndax mu ngi liggéey wala liggéeyul mais man chaque jour rek lu mu liggéey liggéey man doyuma bu doon gont di xëy di fajaru sax doyuma ndax li li ñuy xaar si moom moo bëri yaakaar na bu soobee yàlla dinañ si jot incha yaram moo yor lépp nag mais ñu koy sàkk yàlla suñu borom te noonu lay demee bu soobee yàlla incha allah ah adversaire bi ah, dañ ko ñaanal jàmm rek ak tal ak fekk rek xëy na nit moom buñ la boolee ak moom te bés bi ñëwagul kon kooku dañ koy ñaanal wer waaw mu ñëw si lamb ji ak jàmm waaw ah xam naa bu jour ba rek ñu def loo xamante ne rek yaakaar naa lool moo ñu tax a jóg. te loolu la ñu soxla loolu leen xaar ci booy bi ñu def ko ci fula ak fayda ñibbi si incha allah muy ndam mu ngi koy ñaan suñu borom di ko sàkku ñëpp tamit yaakaar naa combat bi moom combat la combat la boo xamante ne premier combat maanaam ñëpp di ko caw yaakaar naa loolu loolu lamb la xëy na nag mun ngeen nekk ay xale nag mais après turul lamb ji rek mun na leen mun na age boo yaakaar naa grand combat lañ koy jàppe kon loolu tamit. waa dëgg fay la kii waaw ñu ngi koy xaar xaaruñ ko fen bu ñu ko doon door bu ñu ko doon door see bu xoolal kanam bi teppeeku sax moom soxla wuñu loolu victoire rek la ñu soxla. ndam rek ndam lañ soxla ndax góor moom su mettee nga daw doo góor góor bi desina man góor day mel ñeme lu metti lu mu tar-tar nga dugg jàll te bu soobee yàlla noonu lay demee incha waaw waaw ndax wax dëgg franchement ndax ñu naan bés du tuuti boroom lay tollal waaw kon ñu ngi woo ñëpp waa tundu mbus na Ngunjaan rawatina waa Kersange ñu ngi leen di woo bu baax a baax a baax waa di nuyu suñu mag yi nag foofu di leen woo si kombaa bi waaye ñu jàpp si xam ne combat bi seen combat la xëy na nag ñu ñooy dem bori ji waaye ñoom ñoo ñuy xaar kër ga kon ñoom ñu leen di woo ñu jàpp si bu baax a baax rawatina ku mel ni ñoom Ablaye Ablaye ñing mu leen koy woo si combat bi bu baax a baax ñoom Aliou Baye Fall hmm? bëri na daal ñoom Amdi Tine bàyyiwuñu kenn ñoom Ibrahima tin gars yi yëpp daal képp kuy yeewa Mbousnakh rek ñu ngi lay woo si combat bi nga jàpp si nga xam ne sa rak mooy bore ñaanal ko yàlla may ko ndam incha allah. asalaamaaleykum mbooloo ji ñu leen di ziare bu baax a baax di ziare kori nga xam ne moo waral bés bi tey. di ziare gaa yëpp di nuyu ñu nekk ci kër gi ku mel ni suñu kilifa papa Kara tonton Moussa maam maam ak Ndey Farma ak ñépp daal ñu leen di nuyu bu baax a baax góor ak jigéen di ne combat bi moom xëy na coow li bari na coow li bari na trop mais ku ne booy mbapat saxal dem ci bëre mais ku ne Kosaar sa xel dem ci bëre kon tey combat bi coow li mën naa bari mais ñun lu ñuy xaar ñun xam nañ ko te ñun lu ñuy jëli ñun ñoo ko moom te dañ koo soxla te dañ koy jëli incha allah su nee suñu borom. combat bi xëy na combat premier komba Kosaar la mais di suñu premier géew xam nañ luy làmb te xam nañ làmb fu muy lu ñu ngay def bu am làmb te xam nañ fi ñuy jaar ba am làmb kon tiituñu côté bore tiituñu côté leneen xam nga lan la ñuy tiit lu suñu borom di dogal suñu borom gam naa ne ñun lay àndal ngir ñun dañ koo liggéey kon tey làmb ji làmb mbuus naa la tund mbuus naa mafia bi soo ne 100 pour cent mbus naa rek bàyyi kenn surtout rawatina suñu booy ñoom gaan ñoom jël ndañ ñoom yanda ñoom Malick ñaar mi marudo gars yi yëpp daal nañ teew xam ne lamb combat yi bari nañ mbus naa mais ñu ngi ñaan tund mbus naa ñëpp ku am combat yal na suñu borom may ndam rawatina ñoom buus ñoom gars yëpp ñoom kori gaan ak ñu amul combat yëpp nañ yal na suñu borom suñu amee combat yàlla may leen ndam ak yeneen booy yi nga xam ne am nañ combat mbus naa yëpp ñun loolu kese la ñuy ñaan ñun mbus naa moo ñu ñor ak lu mënti xew na mbus naa jël ndam ji ngir tey kii suñu rakk la te gëm ne mag yi ñu doon ci moom mu jox ñu cër boo xam ne ñun gëm nañ se ñun yoloowu ñu cër boobu suñu digganteeg moom waaye nag daa nekk nit koo xam ne daa nangoo magoo ngir rakk boo xam ne du siggi xool nit mu doon rakk joo xam ne waa dégg macha allah waa dégg si yàlla di koy ne na gën a góogóoru rek bu mu xalaat dara mbër leen rek lañ la sas contact entraînement leneen lu ñëw sa yoon bu ci nekk répiquére tëdd nelaw gëm naa ne ku xamul tund mbus naa ci lamb itam dégg nga leen kon ñu ñun waruñoo am lu ñuy ragal foofu côté boobu ci làmb soo nee mbus naa tund nguunjaan mbus naa euh, nga génne ci mbus naa li la jëlee mbus naa nguunjaan jaag geloor soo ci génnee mbuus naa làmb nekkatu fa ñu mën a dëgg wax nag ñoom lay waxal ngir mafia bi su jógee wallahi al azim di nga am mafia bi jóg na bañ nañ ko ba tund boobu ñun la ñuy woowee baaliye bi ngir ci mën a supporte ak xam luy làmb te di koy dund te di koy doxee kon ñun ragaluñu suñu booy am làmb ñu ci am sikki sakandaa dañ ci am ndam wala dañ ci am ndam su nee suñu boroom lan demee korité ñun ñooy sibile ñun ñooy bore ñun ñooy daan ñun ñooy xeex ñun ñooy def lépp hmm. waa saamil xam nga lan lañ leen sant nañ ñëw nañ ñëw kese ah. wallaahi azim ñoom nañ nañ leen bàyyi ak fecc bi ñun fecc moom hmm. mën nañ leen koo bàyyi ak ñoom waaye lu des ci géew bi hmm. ak lu mënti xew ñun ñoo ko moom barki maam làmb ñun ragaluñu ay affaire làmb te tiituñu làmb bés bu ne daj nañ ko ci làmb te ñun dañoo tarbiwu làmb bu egsi fii tey kon làmb ñoo jaaxal di ñuy sikki sakanda dañuy daan wala duñu daan boy mbappa daal lan lañ ko sant lu mu am ci làmb ji estaa la waaw jour ñun ñoo ko moom wallahi azim li ma lay wax nii ci sit laa koy waxee te day wey wallahi li ma lay wax nii lii mooy suñu première sorti ci làmb dóor kon tey dañoo war a wane kore bu ñuy dégg koosaar bu ñuy dégg dañ koo war a wane tey làmb ji jouru làmb ji dañ koo war a wane te incha allah suñu borom dinañ ko wane xam na xam ne mafia bi mooy ñëw ñu toogoon kër ga su bii ñooy ñëw di woo paayi mbus naa yëpp paayi mbus naa yëpp nag bàyyiwuñu benn paa ñu ngi leen di woo ci làmb ji nga xam ne seen doom mooy bëre ji te espoir mbus naa yi ñu am jour boobu ñu am làmb jour boobu ñoo xam ne mënoo wax mbus naa taw nga génne leen ci ñooy espoir espoir mbus naa yi kon ñëpp nañ ci jàpp ñu xam ne làmb la waaw di ñaanal suñu gaay yëpp nag ñoom kombeeg ñoom mamsoog ñoom ndambeeg gaay yëpp ñu ngi leen di ñaan ñoom Ibrahima mafia bi bilaay day metti ñoom Demba alias Bandi waaw Salmon Faye ñu ngi koy nuyu jaaw ganaaw sant yàlla jun yonante sant suñu waa ñaari waajur kon ak kii ni ilimaan suñu karaay waaw dama sal daal suma limee damay jéem Kosaar moom kenn mënu ma ko wax moom ndax xamante nañ xam naa ko man xam na ma bu baax yàgg nañ jàng di génn fu ne di dem mbapat fu ne billaay walaay kon kii nii moom keneen kan wax kay wante du kii nii billaay walaay te ba jour ba dina xam lépp dëgg la moom na mobilise ñëw rek man sa turam billaay xaw ma ko billaay du caaxaan man Kosaar mi laa gëm barke suñu billaay wallaay moom la mobilisé ñëw bu mobilisé tamit day ñëw rek ndawante day daanu incha allahu rabi kii nii xam naa ko bu baax billaay boo bërewul day bëre boo bëree day bëre billaay te lu mu ci yow du yaram yi day bëre billaay wallaay du caaxaan li may wax ni dama xool laa ko jëlee di ko wax ni te moom borom baax la ko waa parce que suñu baax na ko yàlla may ndam billaay loolu laa ko ñaanal man nii am naa ko mbaax na wante moom yal na ko yàlla may ndam ñun tamit yal na yàlla may ndam billaay wallaay waaw <coughs> moom borom baala quoi billaay walaay moom su ma toogee nii ñaari fan boo xam ne man ñëw ma écrit dafa daf may woo ne ma grand séeréer la ma ne ko du dara xam naa rek yaa a xam xam ne fii nii moom jot moo amoon billaay walaay di bëggee ñëpp di bëggee waa mbus naa di waa mbus naa tamit nañ ñëw mobiliser xam ne ay mbir ñoo fi nag bari gi suñ Bàmba affaire dañ ko bëgg ay xale yu ndaw lañ nag ñu ñuy nii ñooñu mag de ndawante laamu moo tax dañoo bëgg affaire bi ma moo tax ñu toll fi mu nekk nii barki suñu Bàmba billaay wallaay du caaxaan dañ koo bëgg nag ñëw mobiliser jàppale gars yi kaar yi tiset yi ak yeneen ak yeneen billaay wallaay comme ni ko kii nii waxee rek Adama Sall barki suñ Tuubaa laam dañ koo bëgg carrément dañ koo bëgg bu nekk xale ba léegi dañ ciy nekk barki suñ Bàmba kon bu ñu demee ba nekk heure bii nii am combat kon gars yi dañoo war ñëw jàppale ñu ku ci ne ni ñoom Aliou Tine gaa yëpp bàyyiwuma kenn Aliou Sall naan ñëw jàppale ñu barki Sëñ Bamba waaw dañoo war a daan de billaay wallaay incha allah gëm nañ ko nag billaay wallaay gëm nañ ko yàlla mooy maye nag na wante essayé lu nekk suñu xol ak lu ñuy entraînement ak lu ñuy daj ah toujours waaw bu ñu bu ñu ko yóbbu ku jant bi leneen dañuy gis barki Sëñ Bamba yàlla nañu yàlla may ndam maa ngi ziar ñëpp bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum. bilaay Kosaar ziar naa la bu baax a baax yal na yàlla yàlla may ndam barki suñu di ziar ñëpp ku fi teew rek ñoom lay sant bu baax a ak ku fi bëggoon teew te teewoo fi rek sant nañ ñëpp quoi bàyyiwuñ kenn ñooy sant ñëpp waaw di naan bés du tuuti borom lay tolloo. waa Kosaar moo ñu jaral lii billaahi ndax booy bu yaru la comme ni ko ñoom aada la ko bëgg la ndax Corsa day tàkk ay mbaam sax di dem ay mbabat yoo xam ne bu la waxee fu mu foofu la jóge da ngay waaru loolu gënu bu gone bu ko bëgg rek moo ko def bàyyi événement yi nekk ci dëkk bi di wër di mbabat waaw ñun loolu lañ bëggoon ci moom gis nañ moom sensation bi yëpp moo ci moom bëgg na ko looloo waraloon suñu teewaay bi tey xamale nag lii dañ dañ dañ la koy mosal rek mais keroog stade bi di nga waaru ndax mafia bi ñëpp ay ñëw ñëpp stade bi ñoo koy fees boo demee nga wax waa booy mbabat lu ñu am nañ ko def instant yi ndax keroog ñun ñooy jibile ñoo moom lépp duñ leen may tous nag waaw ñun xamante nañ suñu biir ñëpp waaw kon mafia bi keroog nee leen ñun ñooy diriger waaw dégg am na ay surprise yu bari nag yu ñëw keroog yow keroog yow na nga teew rek wallaahi lii koosaar la koosaar la ñoom gaan seen yëpp waaw mafia bi mooy mobiliser wu rek feete benn boor jël lépp lu ñu moom ñëwaat indiwaat ko mbus naa suñu yëf la ñoo ko moom waaw di ziyaaraat ñëpp rek di ñaanal ñëpp di bëggee boo yi fi teew yëpp waa di naan lii mooy ànd waa billaahi suñu jàppalantee suñu biir comme xewal yi dina gën a yokku nii nda booy lii lii lañ am si ñun waaw kon nañ gën a góorgóorlu di sant ñëpp waa ñoom Mamzo di ziar ñi fi teew yëpp di nuyu waa kër gi di nuyu ñi fi teew yëpp di leen ziare di leen baal ak di leen baalu ak ci weeru koor gi ñu nekk nii di ñaanal di di ñaanal suñu adversaire yàlla yàlla may ko jàmm ba keroog bés wa incha allah mu ñëw mu ñëw si làmb ji may ñu maanaam mu ñëw si làmb ji maanaam may ñu temps ñu ñu ñëw bëreek moom incha allah daan ko ci kattanu yàlla ñibbisiwaat mbus naa ci jàmm di ñaan yàlla ñu ñu maanaam ñëpp ñi fay ñëw te jógee côté mbus naa maanaam li ma leen di njëkk a conseil mooy ñun ñëpp buñ demee nañ dem ci yar dem ci teggin dem ci dal dem ci maanaam te xam ne ñun maanaam bu dee civilé la rek mun nañoo civilé ba ña tooñ kenn te bañ a dugg si loo xam ne maanaam du loo xam ne maanaam du du teegin daal voilà li làmb ji laajte moom nañ ko def ba ñëpp xam ne ñun ñëw nañ pour làmb li may wax ci Kosaar mi moom xam naa ne du bëri ndax bu ma naree wax si moom moom fii la ñuy fanaan ndax gaa yëpp moom xam nañ niñ demee maag moom yàgg nañ voilà moom bëgg na bëre depuis bañ nekkee xale laa wax ñi ngi ànd di sàmm yi di def lu ne lu nekk def nañ ko ci àll bi maag moom waaye man dama doon tedd sax bañ a bëre mu may door di ma ne jógal ñu bëre ak nangam sangam di ma bëreloo maanaam koo gis nag ak fi la yàlla awloo man moom bëre moom daan naa ko def nii ak moom di kaf nii di foo waaye man dama koo bàyyi waaye moom moo nekk si bëre di bëre di bëre ba yàlla indi ko fii nii jël na kii benn paquetu meew indi ko de ko de koo xaaj xaaj bi ñu indi jox ñu ko jël na benn saako ceeb saako boobu de de xaaj lu bari indi indi ñu ko kër ga biñ ko sombee maanaam waa kër gi yëpp lañ tibal ci ay kaas li ma lay wax de maanaam nit di la woon carrière gi maanaam nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dégg maanaam ñu xaaj ko may waa kër gi yëpp di leen naan pour ñu ñaanal ko yàlla yóbbu ko fa mu bëgg a egg te ñu ngi ñaanal ya ñi ngi ñaan ci yàlla maanaam fu mu bëgg egg si làmb egg fa di ñaanal di ko ñaanal yàlla li li ni def ci làmb maanaam mu def lu ko raw yor roi des arènes ba bàyyi te bañ a daanu loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def yomb am na ko te yomb na ko te yàlla na ko yàlla def ci barke weeru koor gi moom adversaire bi nag ñu ngi koy ñaan mu ñëw si jàmm yàlla may ko jàmm mu ñëw ñu daan ko cel bu yomb incha allahu rabbi ñu ñu ñibbisiwaat ci jàmm te ñi ngi sant ñëpp daal buñ limee dañuy juum asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw waaw maa ngi ziyaaraat ñëpp di bëgg ñëpp waaw daa am na ñoo xam ne dima leen bugg a woo pour ñu pour jàpp ñu jàppale ma ci combat bi waaw ñoom Aliou sama nijaay moo bokk ak sama ndey ndey ak baay waaw maa ngi koy woo ñu jàppale ma ñoom ñëpp waa ak waa Kër Jiga ak waa Kër Mouria maa ngi bëgg ñëpp mën naa laa ne foofu laa dëkk presque waaw maa ngi bëgg ñëpp ñi fa nekk sama sikamay bi Mouhamed maa ngi koy bëggee bu baax a baax baax ma moom ak kii ñoo ñoo yarandoo nii ci àll bi ba léegi nii kenn bàyyiwul waaw ñuy jàppante yàlla tax maa ngi woo ñëpp di fa ay jigéen ak mag ak ndaw góor ñëpp maa ngi woo ñëpp daal waaw maa ngi bëgg waaw maa maa ngi wax séeréer nag séeréer laa bugg wax waaw nga baal ma tuuti rek waaw may sant a ñëpp bëgg a ñëpp ziyaare a ñëpp a ƴimo leŋ waaw ziyaare a win saxate mbus na mais ziyaare a ñëpp a ƴimo leŋ i xooyadin no ko mbaane mais bongolaar ñoom sama ndiigin tuumi bege adin diiborin hoye adin no kombane waaw hot bo suusung cilaw saarin tout bo meke juujuuf mais hoya wa refna maaga jarem tuda akon sax waaw hot bo ganjaay hoyadin booy o ndag ganjaay fo xa teɓaxtin tout mais hoyadin waaganin deɓuyin jeelin tout mais hoyadin no kombane waaw xa ƴiimo mbusna tout xoya ñëpp daal te gara damtamano ko mbaane fo wa refna Espagne waaw ñoom Dumbay Bala Diouf ñoom kii Bas Bas Amadou maa ngi koy woo waaw maa ngi woo ñëpp daal ci combat bi ñu jàppale ma xam nga combat moom dafa métti surtout ma premium combat waaw i bëgg aaw boys nag te refa Baby Manuel Tafa mi bëgg aan bu baax baax waaw hoyan no ko mbaane hoya ñëpp no ko mbaani daal a ƴiimo leŋ im limanga rek kam juum ka waaw jama mi xey xooyang maagis a ref ya fo faap fañaneraam dara i mi xey xooyan tin moom ge bugma xëy de ñaar fo yeng nag waaw billahi mhm. fo wen mbin na fop maak fo njaaj mi hoya din rewɓe jandewgue e mi hoya din tout haƴimo leng goor fo a paagi tout mi hoya ñëpp daal haƴimo leng siyaar naa ñëpp bëgg ñëpp di woo gaay ñëpp ci combat bi di bëgg ñu fi teew yëpp waaw suñu mag yi suñu rakk yi di siyaar mbër bi siyaar mbër bi fi teew muy loolu waaw ñu ngi woo maam waa mbuus naa yëpp waa ci combat bi wolof moom dama ci mënul lu bëri yaakaar na mën naa jóg ci séeréer yi waaw mi ɓegaa ɓe refna mene tout nek ñoom saafu mbal ja o in usu waaw o boy in usu jigéen a taxteer na in quoi a gena boo bo sana men nguncaan i geno mbusna bo god begaana bu baax nik na mën a garna tew me wala bega nego boy in teɓlu no war in way ñanana insala bo rampaan tabaskin ka jik komba wala mbega nik ñëpp nik waxoya paag mbinna tout na ba usu bo xalam taw bo cat koñ bo koñ ruk bo ruk mi lema nik a refe sarde insala agaran comprendre fata an pousse ke parce que dug ɓakke o bii dal ini ini ka ini passe ka ini ɓakke o bii attaque ak défense ak milieu lépp voilà bajal man jal waay bon yako voilà andim boyen papatale men andim boyenam voilà ñakit kinum kersanik a leng an teeramutin merang ruube rek sa waay ini dakno ruube de inchallah toujours an comprendre inchallah ko saara hana hana yoyin took hana yoyin haalang min yoyin took inchallah inchallah suurna ke roog rembirde o sereer o refu mais boka soor wa butel kam geeke ge guko ɓisa cumokay ke roog um ɓis cumokay ke xupnina ka le sooram soor wa a pale ɓisa fo ɓoorni parce que sooram soor wa rek ge rek bugum parce que ando xe ke ref ndambe mooy ten nag Djiby dégg naa ne mais mooy mooy voilà boros el bandit a siwaay sawo mbal a poro carang upanga yoxna ñana ñana ñana mbirna ni roga kawtin bo busuk meke bo surna komban jama hedin dara fa ñahet quoi voilà fo bébé manuel a boyum tate ka yon tameke buga njaay amma fara mu refna voilà komban ni ga may sow mais problème jige wa ini go dik di jige mom wa deg te refa laaj ñak wala ragal de te ref komban ha laaj ñak ragal de tutirnegi insa fogam negi manam no gi getinina quoi <coughs> pour mi dide dide sarare dal manam ragalul deful dara voilà boyum negi bebe man mi heñana nan boramban li sarntina wat voilà ka jik combat mais bur wan dal fola kada voilà champion busna negi mais began tar fa daw busa roga roga lay otere famin bo esano tere mel champion busna boyudna ay ay namel jama in yanda in tout begadin bo garna halam ay jel dañin moduka in gan voilà boo yónnee Teba Xalam ay Kosaar tableau noir 72. simila gars yi maa leen di ziar di leen ñaanal jàmm tout le bëggee ñëpp ñu si xëse teew di wax loo xam ne si loo xam ne si lamb boo xam ne mooy diggante Kosaar lu mën ta wax moom si moom rek lañ mën a wax ndax keneen xamuñu si moom lu bari mais kuñ nekkal ñun xam nañ ko bu baax xam nañ luñ bëgg te xam nañ yoon bu mu nekk kon lu ko war lu war si gars yi ñëw si lamb bi jàpp si ñun yëpp. ñu xam ne loolu moo ñu war ndaxte suñu waay suñu lépp la wax dëgg fa yàlla moom ànd nag moom fu ne gis ko muy bëre lu ne kon xëy na lii nii nekkul lu ñu jaaxal nekkul lu ñu bett nekkul bés boo xam ne tey lay doge ñëw si ñun te bu soobee rek ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ñu dem ba ko ñun yëpp te am jot ñu tal ko ñu yëpp mafia bi nag may bëggee ñëpp waa génération 2015 bi ñëpp laay bëggee ak ñu si xese teew ñu waaj combat bi nga xam ne combat boo xam ne combat bi ñëpp la bàyyi ñu kenn ku nekk mbuus naa rek bokk nga si làmb bi jël yoonu lii yoonu ngundaan bi alliance bi amul xalaat mafia baa ngi nii toog ñoom Zal ñoom Ousse di béggee ñëpp ñoom Samba bàyyi ñu kenn ak suñu garaay ili ñu nekk suñu ginnaaw kon amuñu lu ñuy xalaat ci yoon bi mbar lu su xësa des bul xalaat dara lu nekk si ginnaaw jàppal ni lépp sëy na ñu ngi la alliance band yi tous bi ñoo ko moom stade dem foofu yëngal ko nekkul si ñun dara yeg nañ di dem fa nag foofu suñu bés la ku fa dugg di loxal mën ngaa toog kër ga xaar fa bu soobee yàlla suñu borom lamb bi amul lu ñu siy téet nañ xam ne fii nii lamb bi ñoo ko moom barki yàlla bu ñu waxantee dëgg mbus naa at la arrêt boo mas sa taxaw fii nii boo compté compté wàlluñu ci biir barki Sëriñ Bamba xool leen suñu garaay ñoom Zos ñoom kii nii ñoom nuñ koy wax di ñoom kati junior gars yëpp foo compté foofu ñun ngay njëkk a compté ñun ñoo leen njëkk a siiw kon ñoom dañuy toog xaar ñooñu suñu ginnaaw la ñuy féete kon ñooñu mënuñoo nekk suñu kanam ñuy toog di xalaat yéenay dégg ah, kon mbor lii nii nekkul li ngay toog di xalaat jàppal ni am nga àndandoo yu doy ñun ñi yëpp mafia bàyyi ni toog yoon bi bu soobee dañ siy tegu bul si xalaat dara waaw maa ngi sant mais sant a ah, mene bu ngaj may sax am xalin i mais sant an paax a paax sant a ñëpp falu maak ngaj mais xooyan den ko mbaane waaw o xaaga moom o maɗis a ref i miño miñ i yaal mbin siyaare am bu baax a baax yaan mbinin tout xajimo leng daal sorto buus waaw billaay maa ngi sant ñëpp ñoom Aliou Baye Fall ñëpp waaw ak ñoom puus Modou Yaay Juma waaw meexooyeen meexooyeen Modou Yaay Juma waaw meexooyaa ñëpp xajimo leng xutu deer ma gonum rek xutu deer ma gonum rek an kam wecow billaay helimate kiin waage moof alim gon nu refna helim fadeer maaga i e. me xooya foop daal billahi waa Seydina Omar mu lay bëgge waa grand kosaar moo ñëwaat rek <coughs> waa gën a ñaaxat gars rek mboolem koo xamante ne yaay yeewatu nu mbus naa rawatina ñi nga xamante ne Euh, mooy suñu grand yi nga xamante ne ñoom la ñu yàlla booleel ku ci mel ni ñoom Aliou Tine suñu grand ki nga xamante ne xëy na responsabilité la ci politique ñu ngi koy woo si combat bi bu baax a baax a baax di ko talal loxo di ko ñaan tamitam ñëpp lépp lu ñu mun a def boo jàppale mbor mi daal nañ ko jéem quoi waaw di nuyu ñi nga xamante ne euh, ki nga xamante ne waaye ñoo waaye Mbousnakh production ñooñu tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax xam naa wax dëgg fay la. bes bi bëggoon nañ ko ci booy bi ci koor yi xëy na nag yàlla def na ne ñoom ñoo taxawal kombaa bi kon ñoom dañ lañ koy dañ lañ koy sant bu baax a baax a baax ndax bu leen neexoon tamit mun nañ koo bàyyi fii xam xool yi feneen mais wax dëgg depuis daaw ba ren ñu ngi koy wutal combat xëy na tey euh, def bés bi taxaw kon ñoom tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di nañ tamit tam seen seen organisation yi yal na ci yàlla sotti ndox mu sedd guy waaw def ci xéwal tamit bu baax a baax waaw ñu am ci réussite totale daal wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen koy ñaanal waaw bu ñu jógee foofu dañuy woo comme ñu ci mel ni ñoom Bas Bas ki nga xamante ne Bas Amadou ñoo woowee Bas Amadou ñoom Mamadou Mbaye ñu ngi leen ciy woo bu baax ñoom Jibi Tine waaw muy papa ci kii Ibrahima Tine ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax waaw ñoom gars yëpp daal bàyyiwuñu kenn. Euh, ñoom daaw da ñing bu koy woowee ci daaw raxu ñoom moo du buus waaw ñu ngi leen di woow bu baax a baax a baax ñoo ñu yaakaar naa ñooy suñu grand ñooy suñu grand ci lamb ñoom ñoo ñu teg si yoonu lamb ba ñu yegg si fii kon bu ñu yeggee ba fii waruñoo dem bàyyi leen ginnaaw kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaw di sant suñu yaay bi taxaw tamit muy Ndeye Fatma kii tamit dafa yàgg ñoom trop barki alxuraan presque ñu ñun mbusunaax lañ dekk dekk séeréer ñëw fii kon bu ñu demee bu am autorisation ñëw këram yaakaar naa yaatuwaayam moo ko waral dañ na ko yàlla fay fayam ak njabootam yëpp waaw ñu sant ñëpp tamit yow tamit Seydina Omar yow ñu lay ziar <coughs> ñu lay ziar bu baax yi la ñaanal jàmm di naan sit bi yal na ko yàlla def télé bu mag tamit boo yaakaar naa adduna yëpp di ci taaxeerlu ay émission kon ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax a baax waaw di jéglu bu baax a baax nag waaw comme supporters yi tamit côté boobu lay waxee côté supporters yi ndax mbooloo moom ku woote mbooloo moom foofu nga woote dal ñëpp na dal ànd yar ak tegin tamit yar teggin tamit taxul nga taxul tamit nga ñàkk ànd ak sa fula ak sa fayda sa fula ak sa fayda mooy li la fa indi la fa taxaw ci def ko ni mu ko waree nga ñibbisee la nga ñibbisee ak jàmm waaw que le meilleur gagne daal mais en tout cas ñun li ñu gënal moom mooy booy bii nii am ndam incha allah yaakaar na yàlla bu soobee yàlla yàlla nga ko def. kon ñu koy ñaanal ñëpp di jéglu ñëpp nag ku ñu fàtte tamitam ñu ngi koy jéglu bu baax xam ne tamit nit moo matul ndax mënu ñoom lim ñëpp kon xëy na nag ñu ngi jaajëfal ñëpp maanaam tudd bus naax ngunjaan ñëpp daal ñu ngi leen di siyaar kon loolu mbokk moo fa nekkati léegi jàmbur nekkatu fa waa dëgg fa yàlla boroom këram itam jàppi ma comme sama comme doomam ñu nekk ci suuf sama ñijaay jooju jàppi ma comme ñijaay du nijaay Lamine du ñijaay musa suñu maam nag yaakaar naa man la gën a bëgg ay setam ñoo xam ne ay doomam ñoo leen jur kon ñii mënuma leen a fay waa dëgg si yàlla moo tax tey bu ñu nee dañuy def interview bi ma leen ko waxee ñu ne ma kaay defe ko ci kër gi kon mënuma leen a fay rawatina nag sama seex bi ana sama seex bi Assane mbay koo koy sama seex bi kooku Assane ñaari seex bu ñuul beeg bu xees bi la ñuy wooyee wallahi azim kon mën a kooku amuñu frontière ak ñëpp nag rawatina nag jéeg yi nekk ci kër gi wallahi azim su ma génnee sa sama añ wala sama reer dama ko fi fekk te duñ ma laaj dépense duñ ma laaj dara kon ñi mënuma leen a fay xanaa rek di leen di ñaanal gudd fan ak weer ñu dem bo ñuy ñëw dëkk ba di muur seen turandoo loolu kese laa leen di ñaanal mooy sama yaay jee moom laa tudde doom sama taaw moom laa ko tudde di koy ñaan yal ànd bi ànd boo gis nag am na fu muy yem waaye yal na suy yem itam nay nekk lu rafet loo xam ne ku ne dangaa dem bu xam ne sa kër màgg na ngir lu ñuy wax rek <coughs> garab moom su banqaas yi magee day garab su amee ay banqaas day law kon yal na suñuy banqaas suñu màggee itam yal na banqaas yi continuer waaw ngir mbokk lii rek mooy mbokk te mën na lu ñu am na ñoo xam ne nekk nañoo ak ñoom santaakaat dimanche mën na lu ñu lii waaw yaakaar naa bi ma fi dëkkee ba léegi xaw ma kañ la quinze ba léegi léegi mu mat 10 ans man ak ñoom dara mosul ñaaw kon yàlla loolu gën a continuer ñu ngi koy sante bu baax nag moom ak borom këram ak maam suñu oo xam ne mooy suñu kilifa ñu ñëpp wax dëgg si yàlla jàppe ma comme doomam comme setam billaay walaay ñii su may wax ci ñoom du jeex ara ñu yemale ko foofu jox suñu rapport bi mu yëngal nga xam ne mooy alias Mamzo mooy yëngal mbus ndax. asalaamaaleykum sama gars maa ngi bëgg ñëpp di fee ñëpp di bëggee gars ñu fi nekk yëpp euh, rawatina mbër mi fi nekk di ko bëggee di ko ziar bu wér bon man nag ci wàllu rap laay yëngatu mais boo gisee tey ma teew fii euh, justement que ni bëgg mbus naax bëgg ay doomi mbus naax kon mun naa ne mbus naax ci lu ñu nekk ndek man dama ci dox quoi parce man. dama bëgg sama déko quoi moo tax mu joge ba almadi tey ji teew fii pour invitation xam nga di ko bëgg nag xam nga di bëgg gars yi yëpp man nag lu ma si wax mooy xam nga après ñu ñëw jàppale gars yi jàppale mboor yi jàppale artistes yi parce que mos na am na ay talent am na ay talent am na ay booy xamante ne am na ay talent quoi euh, rawatina euh, am na ay artistes yu bëri moo ñu ngi ñu ngi yëngatu ci wàllu rap yee xam nga bon ñii di yëngatu ci ñii di ñii di ñii di yëngatu ci wàllu kii ci wàllu bëre kon war naa war naa war naa mën a nice quoi après ñu jàppale booy ñu dem quoi parce que booy am nañu talent booy bëgg nañu bëre xam nga kon ku nekk rek maa ngi lancé appel di ko lancé suñu grand yi fi nekk xam nga mos naa dañu war dañu war a gën a déggoo mànkoo te booloo quoi te xam ne tamit xam nga amuñu lu dul mbus naa quoi kon quel que soit alpha xam nga nañ jàppale booy ci wàllu eh, kii bëre bi jàppale gars yi yëpp xam nga ñu nekk benn xam nga parce que am nañu champion quoi rawatina ay George Bouze ay Maduka Brisili Mamadou Baye Fall ay Rafkat yëpp ay champion la ay Gane Séeréer Yanda eh, ay Kosaar yëpp barki yàlla ay champion lañ mais justement nañ jàppale booy parce que booy bëgg na lu ñuy def eh, jàppale rek parce que mbër boo nee mbër nga ne jàppale parce que mbër mënul mënul dem sans mbooloo mbooloo mooy mooy doole te booloo mooy topp mbër. kon yaakaar naa ne bu ñu defee loolu rek xam nga gis naa dina dina gën a jëm kanam quoi lu ñu bëgg tamit xam nga dinañ dinañ ko gën a am quoi parce que xam nga may lancer nag xam nga ñu jàppale <laughs> rappeurs yi quoi parce que en tant que rappeur bon soo gisee ma teew fii xam nga bëgg euh, bëgg lu ñu doon quoi moo tax xam nga mais en tant que rappeur woon mun naa lancer appel di woo gars yëpp ñu jàpp ñu jàpp si si si si affaire yi quoi parce que bon bon ñu ngi si hip hop bi ñu ngi yëngatu mus naa am na ay artistes. yu bëri xam nga ñu ñii di way ñii di gas hip bon war nañ gën a jàppale booyi quoi parce que booyi bugg nañ lu ñu def xam nga gars yi bon may woo ñëpp may woo ñëpp ñu ñëw ñu jàpp ci combat bi xam nga euh, di sant waale euh, adversaire euh, Kossar muy booy Mbapat parce que dañu ne après combat c'est le fair play quoi xam nga ñu ñëpp ñëw bokk ñu nag doomu ngu ñaar ñi ñëpp ñëpp ñoo bokk lépp xam nga kon lu fi ñaaw waru waru waru fi mun a am quoi mais après combat bi daal c'est fair play mais avant combat bi daal xam nga muy loolu lu fi am muy loolu combat bi moo ko jar quoi xam nga ñu ne tamit xam nga muy loolu quoi mais daal après combat bi daal c'est kii fair play moo si tegu quoi xam nga kon maa ngi ñaan nag ñu daan ko xam nga man loolu ay sago quoi xam nga Kosaar daan ko daan ko jël bu 7 8 laay sago parce que man sama doomu dëkk laa bëgg quoi suñu fàllu rek xam nga soo xam nga di bëgg waale ñëpp. bon di bëgg gaa yi fi teew yëpp xam nga parce que muy loolu quoi di bëgg ñëpp daal non wàllu si bi moom dama dama jàppoon comme tey ñoom lamb lamb la ñu woote après dama jàpp ne comme bu ñu amaatee benn interview peut-être mun naa def mun naa def xam nga daa si rob quoi parce que tey lamb la ñu woote maa ngi gis xam nga parce que tey dañu <laughs> <laughs> non non non nañ ko bàyyi ba beneen rek instant yi instant yi comme instant yi comme lamb la ñuy woote tey moom waaye nañ ko def jëf lamb quoi mais après daas yi foofu moom nañ ko def ci foofu xam nga maa ngi quoi ma yee xam nga mais comme tey lamb la moom nañ ko bàyyi mbër yi quoi xam rek muy loolu quoi mais bu dee rap moom eh, ñu def ko benn interview boo xamante ne xam nga danga may jël carrément après booy xam carrément bon kuy Mamzo parce que Mamzo from is the building eh, dëkk Mbousnakh muy loolu quoi gars xam ne carrément kii mooy kan mais comme tey moom lamb la ñuy wootee yee nañ ko bàyyi ak mbër yi mais bu dee beneen interview xam nga muy loolu waa day neex parce que xam nga ci loolu la ñu jëm kat quoi et dañu gëm lu ñu doon euh, ragaluñ tamit fu ñu jëm quoi ci lu mu yee noonu la fa demee mais di bon di la sant tamit yow yow tamit yow mi nga xam ne yaay caméraman bi <laughs> di poser ay questions yee ñu lay sant wér di bëgg gars yëpp mafia bi yëpp xam nga di leen bëggee kontaan ci ñoom nag parce que yàlla i santaat naa ñëpp rek waaw maa ngi santewaat ñëpp di sant ñi ma dëkkal fii 14 ñi dëkk njaaraw lañ dëkk njaaraw sandoog njaga ñaaw maa ngi sant ñëpp ji ay jigéen lañ suñu yaay lañ ñoom Adama Ndiaye ñoom day astu waaw ak ñoom Amadou Amadou Poul maa ngi koy bëgge ak Mor booy bale waaw maa ngi koy sant bu baax a baax ñoom ma Abdou ñoom Babacar ñëpp maa ngi sant ñëpp daal waaw mhm. waaw maa ngi sant ñëpp daal ak ñoom Mamadou Ndiané la dëkk moom Ngou Ndiané waaw maa ngi koy sante di sant sama benn mag Madi Ndiaye Madi njaay maa ngi koy sante bu baax a baax waaw seen ñu gën koo xam Mamadou Seen waaw maa ngi koy sante bu baax a baax gaa yépp ñu may jàppal ñépp daal waaw maa ngi sant ñëpp di bàyyiwuma kenn ak waa Kër Mouri waa Kër Mouri mën naa leen ñoom ñoo moom combat bi waaw ñoom ñoo moom combat bi xale jigéen yi ak xale yu góor yépp ak maire yëpp bàyyiwuma kenn ak waa Kër Sange waaw boo Kër Jiga sama nijaay yi foofu lañ dëkk waaw maa ngi sant sama nijaay ak sama yaay maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn waaw. asalaamaaleykum. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant tey ñaan yàlla lii ñu lii ngeen bébét di ci dugg ak bisimilaay yàlla na yegg ci alhamdulilahi rabil alamin te bu ci yeggee yàlla na leen sunu borom defal ndam defal leen ci lu kawe seen njort lu rafet la di sant nag sant goo xam ne am naa fu mu commencé waaye amul fenn fu mu yem muy aadama ak ay bokkam ndax kay ma jur la neexul yaa ma jur moo neex te aadama moo ma ne yaa ma jur te doomu aadama boo gis na ko jàppe comme sa bopp ndax ñi ñëpp yam yem fa yàlla te njaboot moom gejj gooy weer la rek xamoo boo liggéey ku lay jariñ kon moom dama koy sant sann bu am commencement ay amul fenn fu mu ak ay mbokkam ndax su ma àndoon ak aadama te ay neexul ay mbokkam kon ànd bi du yàgg waaye ñoom ñoo ko ci bàyyi fii ñii fi toog ñëpp mën naa ne ñëpp samay njaboot la ñëpp xam nañ ma ñëpp xam naa leen di ñëw ci man di seet si aadama buñ ko fa fekkee ñi ngi toog ci man suñ ko fa fekkul ñu ngi toog ci man kon ñoom ñoo ma bëgg ma di leen ñaanal yàlla fi ngeen bëgg a yegg yéen ko xam yàlla na leen fa sunu borom yeggale yàlla may leen ndam ni mu ko daan mayee nit ñu baax ñi yàlla na leen ko fa may ndax ay ndaw ngeen te borom karaw gu ñuul ñàkkul dara te yàlla na leen yàlla defal ndam yàlla gën leen a yu cëral gën leen a wéral ndax li ngeen di def ni rafet la fii ndakaaru kenn di ko fi daan sa dool rek moo ñu fi indi di man di yéen di kum ci mënti doon kon lii ngeen def nii bu ngeen nekkee Dakar teewul yéen a ngi fàttaliku seen ginnaaw kon sunu borom yàlla na leen defal li gën ci yéen te bu gënee ci yéen yàlla na am bu amee yàlla na ngeen ko fekkee ak ku ngeen ko yéene ak seen njaboot ak mboolum jullit kontaan naa sama xol sedd na guy ndax kër yëpp bari na fi ngeen romb ñëpp ñëw ci man kon man baaxuma yéen yéen a baax yéen yéen a ma bëgg mënuma leen a fay aw ma seen fay wallaay aw ma seen fay xaw ma lu ma war a wax loolu sant bu baax a baax di sant sama borom kër bi ma bàyyi ba may ma jàmm ba mu mën leen a yaatal sant sama waajur bi ma nekkal ci kër gi aadama mii moom moo ñu bëgg sama yaay mooy moroom moom mooy jabaram sama doom yi li may defanteeg aadama duma ma ko defanteeg samay doom xam nga dañ ne peccum liir bu neexee ni nday jaa tey ca mbagg ya bi may ànd ak moom metti woon na mu gëm ma ay nit dañ ko doon wax kii liggéeyul demal nga liggéeyi mu gëm ma kon su ma yeggee fi ma yegg tey moom mii laa koy sante moo ma jàppale ndax jigéen laa di boroom kër di jóg di daanu mi moo ma gëm jàppale ma ba fii ma yegg tey ma yegg faag moom kon man maa amul fayam man maa ko mënta fay xanaa bàyyi kook sunu boroom moo xam li mu bëgg yàlla na ko sunu borom defal muy gën ci moom ci barke Serigne Touba Mbacke mi ñu yaakaar man ak moom jërë ngeen jëf